cees tey boo fi ñëwee lépp loo xamante ni dafa nekk jafe-jafe ci askan wi da ko fiy fekk muy chômage chômage massif maanaam chômage bi foo ko takk weesu na ko bu weesoo chômage bi mooy li nga xamante ni mooy ci wàllu formation des jeunes l' employabilité foo ko takk weesu na ko léegi lay génn ci cees ak environ bien sûr parce que léegi Jobaas la njëkke tey waaye boo fa demee ci jungaan ak Jobaas yëpp li ko wër accès bi c' est extrêmement difficile absence d' infra déficit infrastructurel boo xamante ni maanaam amul ay yoon yu ñu war a jaar pour dem fa te loolu mooy dal dëkk-dëkkaan yi nga xamante ni yëpp tey ñoom ñoo wër Thiès. hôpital amul fu ñu fajoo amul hôpital yi nekk ci biir Thiès sax hôpital régional bi xam ngeen ne tabarkalla tabarkalla